alaaji Pap benn góor gu baax daf ni li la yàlla defal li la yàlla defal moom ngay muñee li la nit ñi di def j'ai li la yàlla defal moom ngay muñee li la nit ñi di def loolu lu muy tekki mooy yàlla may na la lu tax nit ñi teg la bët yàlla may na la li tax foo toog nit ñi di yàq sa der te ki lay xas bëgg naa mel ni yow te mënta mel ni yow waaye waaye dellool yàlla njukkal ni ko li nga ma defal nag yàlla wax dëgg yàlla rus naa di tontonte bàyyi naa la ak yàlla. waaye yenn saay yi euh, ñu ñu ñu ñu bañee la ci lu ñu foog. maanaam yow yow xam nga ni yàlla mayaguloo loolu wala amaguloo loolu mais ñu bañ la ci ndax foog ni yàlla may na la loolu. pap bari na koo xam ni li ko dal lépp ci njort la ko teg. Mhm. njort ak yaakaar. ki yaakaar ni nag denc naa ay milliards du man maa lay leeralal ni denc ma milliards. bis bu nekk damay jëf lu war a tax nga gëm ni denc naa milliard mhm. pap àdduna concours la mhm. kenn àggagul ci yàlla ba xam ku jël pee ak ku jël ndaare mhm. foo mën a nekk ci àdduna rafetalal sa àdduna te gëm yàlla bari na yu nit di def pap lépp ñàkk gëm yàlla la te pap yàllaay maye yàlla dana may ku nekk ca domaine ba mu nekk ku ne nag maanaam wërsëgu jaam doomi aadama munu ci dara. yàlla pouvoir am da koy wane ci fépp ci àdduna mayul jàngkat bi kese kese kese bàyyi musicien bi. est-ce que man am naa. bërki démb pap xool la ni la yaa ma xañ sama teraanga àddina yaa ma yàqal wala yaa ma xañ. ñàkk am am ñàkk gëm yàlla la. kenn mënta xañ kenn. nit amul pouvoir bi. déedéet ok. sénégalais dafa gëm aada. Mhm. yenn saa yi ñu ne la ba nga takkee sa jabar jii ba tey say buntu daa ubbu. Mhm. nga gëm ko. Mhm. ba nga takkee sa jabar ji ba léegi sa entreprise bi daa dellu gannaaw. fekk daa tombé. moo tax ñu naan tombé waral ay gaaf ku masta yéeg jakarta takk jabar xëy suba yéeg jakarta damm ndaw si la wala jakartaa bi. yaa yaa tooñ sa bopp parce que mosoo yéeg jakarta dëgg la léegi yéeg nga ci damm tombeek nga am seet ñu jëñ ko seet bi Sénégal da ngay takk jabar ñu toog ci biir néeg bi di jàng sa jabar hmm. boo fatoo ñu ñëw ci sa yaay naan ko ah xool naa ko waaye bëtam bi ni ngi raf de ñii naan ko yeelam bii ma gis waxul ay atam waaye mag la de. mais loolu ay aada yu aada yu baax la. ay gaaf pap yàlla bindul nit kuy xañ nit. la yàlla cuunewul moom sunu borom bay bind koo xam ni boo duggee ci moom sa wërsëg tëju. dëgg la kon yàlla matul matul li mu doon. waaw mais moo tax boo buggee takk nga dem ci imam par exemple mu seetal la defal la ay ñaan xool ndax sëy bi ànd na rawaani. mën nañu sëy wala mënuñu sëy sax kubéer yëpp kubéer la. waaw waaye butéel bu ne ak kubéer ba koy tëj. Hmm. mais kubéer yëpp kubéer lañ. d'accord seet ki ma war a takk ndax suñuy rawxaan ànd na tekkiwul ni bu ma ko takkee damay torox xam nga yàlla alxuraan ba alxuraan daj bindul fenn ni kuy takk jabar seet ko amul ci alxuraan de ah loolu bokkul ci non amul ci alquran demal seeti ki ngay takk ñu listixaaral la ko. ah bon baqara ba naa si amu ci. mais gaafal nit lan war a ba. pap jigéen ñii ci kër yi di sëy pendant vingt ans amuñu doom mais stress bi ñuy dund kenn xamu ko ko dul ñoom. lu ne lañ leen di xas. te yàlla la yàlla moo leen. yàlla moo leen xañ doom mais seeni goro gëmuñu ni yàllaa leen xañ doom sama doom ji damaa war a am sët ba mu duggee ci yow ba léegi daa dëgër ñaan lu naa fu ne say mbir nii mu dëgëree xanaa jéem a takkal ko jabar ndax nangam ak nangam kuy maye doom ku dul yàlla. mais dañoo réew mi dafa am fabrique doom. oustaz njaag nangul tam dafa neex de. njaag nangul njaag nangul njaag kaala gi ci boobu bi ci digg la jëkkee njaag nangul yaay yi dañ ko bëgg a dégg quand ñu yebbil leen. boo ko bëggee jour ngénte seen jabaru doom. mais Pape Sayyidatuna Aïcha déggul ñaag nangul. ah yàlla mayu ko doom. te moom dong la yonent bi bëggoon. yonent bi dafa bëggoon naa Aïcha ba wax ni sama xol bi yàlla dugal na ci Aïcha ba ma yëg ko. daf ko bëggoon. te amul ak moom doom. ak ni doom neexee. yàlla xañ ko naa Aïcha pour yow mi war a ñëw après nga xalaat ni ku la gën ñàkkoon na doom. waaw boo ko xoolee foofu itam ci da ngay muñ papp dëgg la dëgg la mais réew mi boo amul doom du ñu la fonk mhm. soo amul doom du ñu la respecté mhm. soo amul doom danañu la gaaruwaale ci kër gi danañu def ay geste yuy tax nga nga blessé sew mhm. yàlla boo am wujj bu bon yàlla may ko ay doom te yàlla mu jàpp ni doom yi moom moo ko may boppam or que yàlla mooy maye doom mooy xool ki ko neex mu may ko doom xool ki ko neexul mu ne la doo am doom mhm. bu kenn xas sa nawle ngir ne diw amul amul doom ñu commencé taasante ba mu fi sëy sëy ba léegi daa taxaw taxawaayam bi daa yàgg pap réew mii bari na sëy yu fi tas goro yee ko tas billaahi wal bu njëkk goro da daan defar mhm. bu njëkk goro da daan yar pusoom di ñaw mhm. lu ñaaw mu defar ko waaye goro boo xam ne yaay dem Casamance yaay dem gàmbi yaay dem Guinée yaay dem Bissau yaay dem fu ne yaay wuti gàllaaj di tas sa sëyu doom ak di ko conseil lu bon sa jëkkër jii de boo ko liggéeyul téye ko comme ni Fatou def jëkkëram jii da nga yeex a am ci téléphone yeeg armoil yu bees dafa bari yaay yu daan defar démb tey ñoo yàq seen sëyu doom parce que ñoo ci dugg sëyuñu bàyyiwuñu ak jigéen ñi nga xam ne pap fañ doon sëy si mais seen jabaru doom itam dañoo garaaw xale yi léegi dañuy fétiche dañuy dem ba Nigéria maa ngi ñëw wax la ci cas boobu on se retrouve après le journal d'ailleurs benn waxtu mooy doog a jot Fati Dieng la ñuy àndal maam Fati waxtaan wi neex na waaye lu mënta ñàkk faaw mu am mm. dañu lay bàyyeek euh, téléspectateurs yi bu ko defee nga yebbi jox ñi xibaar diggu bëccëg gi mm. juste après ñu àggali ak euh, Oustaz Modou Fall. incha allah Pape Cheikh jërëjëf euh, jaajëfal leen ci ànd bi ngeen ànd ak télévision Futurs Médias da leen jàmm ci xibaaru